asalaamaaleykum mbokki Jaxaaw asalaamaaleykum mbokki Thiès ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci sa tur ak sa euh, sa sant di nuyu presse bi bi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp également waaye di nuyu ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye borom Bawol production bi nga xam ne moo waral bisu la onze muy bis bu am di bis xam ni li ñuy wax chaque jour rek mun naan na cinq grands combats la la taxawoon ci bis boobu noonu ñu mën cee lim ki nga xam ne mooy booy jaxaaw mii nii war a bëre ak ki nga xam ne mooy Baye Mandione Junior di bis bu am solo ci ñoom ñaar ñëpp parce que ay adversaire de taille en même temps ñaari mbër lañ ñoo xam ne kenn ku ne xam na leen ci làmb dootu ñu représenté parce que boo nee booy jaxaaw Thiès kenn dootu ko laajte ci làmb mais également boo nee Baye Mandione Junior kenn dootu ko laajte ci làmb parce que mooy rakki Baye Mandione booy jaxaaw bala ñoo sori dañ lay bàyyi nga nuyoo nuyoo say am ni jàmm mais nuyoo également ak waa jaxaaw boo jaxaaw nuyu nañ la waaw Kara dinaa bañ sant yàlla julli si yéen doole sant mooy waajur bu a baax di waxaat ne rek dañuy gën a doole sant yàlla julli si yéen bi dañ gën a sant bu baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Bara Cissé baax si man di sant mais kon tamit baax a baax dinaa tamit waa may sant waa Jaxaaw bu baax tey lépp lu ma mel rek ñoom la kon donc maa ngi leen sant bu baax a baax maa ngi sant tamit Thiès bi yëpp waaw di sant ñëpp cent pour bi nag maa ngi leen sant bu baax a baax di wax rek di ñaan yàlla nuñ ko demlee nii rek suñu borom suturaal ñu donc ñun ñoo si def première sortie suñu borom may ñu ndam yeneen combat yi stop tamit suñu borom mayaat ñu kara maa ngi sant ñëpp di ñëpp di gërëm ñëpp surtout ki nga xam ne tey sama kilifa nga xam ne moo fi jógee sànq mu président Habib Niang geste bu ma wul mu def sant bu baax a baax maa ngi nii ñëpp sant ñëpp surtout sama géwél yi ñoom maam Seex ñoom Xaadim Fallou ak booy yi nga xam ne ñoom ñoo topp seen ginnaaw ñoo ngi bu baax a baax gis coono yi daj bu ñu amee combat di leen nuyu tamit yéen journaliste yi di leen masawu coono depuis xaar bi yàgg na depuis 16 heures ba léegi yéen a ngi fi kon donc ñoo ngi leen di baax a baax boo jaxaa mooy sant ñëpp di gërëm ñëpp nga jël ci bis solo muy la onze février sa diggante baama ñoom junior nga am combat Thiès yëpp dem cent pour cent Thiès nekk sa ginnaaw mii mën nañu mooy première fois d'abord loolu noonu lay def ci waaw loolu moom sant yàlla rek Kara man suñu borom dafa ma bindee noo xam ni man dara duma a maanaam dama nekk nit koo xam ni man damay maanaam sama yëfu bopp laay dund quoi dund Baye Fall man dara teguma pression kon donc 100 pour cent bi na lu rëy mooy li ma la wax sànq rek dañuy ñaan yàlla concours si ñun la tàmbalee suñu borom suturaale may ñu ndaw buntu yi gën a a ubbeeku booy jaxaaw bu amee combat day gis muy décentralisé ay open press am tey nga def ko fii nga xam ne mooy 18 18 su ma juumul d' abord lan moo waral loolu. waaw lu dafa nekk ay ndaw yi nga xam ne dañ ma taxawalal fan si club ñu taxawal fan si club ñu daal di boole fan si club bi mu nekk benn maa ngi nii passage euh, Sidi Mbaye président fan si club bi gis nañu liggéey bu am solo bi ngay liggéey ak seen jigéen muy julde gis nañu liggéey bu am solo bu ñuy liggéey kara booy dañoo cotiser vingt mille vingt mille ngir man sama jëmm boo gisee tey maanaam koñ bi dafa taaru couleur zone noire ñu yëkkati seen vingt mille def ko ngir man kon man war naa liggéey ba dee. la onze lan la ñuy xaar ci Boy Diakhaw. la onze lu ñuy xaar mooy lu ñu doon xaar rek yàlla dañuy ñu daan suturaal ñu may ndam kon donc dañuy ñaanaat yàlla rek mu suturaal ndam ñu may ndam parce que lépp lu war ci combat bi def nañ ko ànd nañ seen suñuy mbokk liggéey nañ si lu ñu war a liggéey donc moom dafa jàppandi moom moo liggéey te incha allah la onze bu simeekoo ba simeeku dinañ xam kan moo gën a liggéey. nga jël adversaire boo xam yéen ñaar ñëpp da ngeen di xeex doo bëre non du xeex ak man bàyyi ma joon si ñëwaat du xeex ak man bàyyi ma joon ñu bëre fourrière bàyyi ma joon ñu bëre jaajin du xeex ak man billaahi loolu foo ko teg waxam ne góor loolu fan nga ko teg dama xam ne góor du xeex ak man rek loolu ba ma nekkee xale la ba léegi du xeex ak man wax jee bari rek wallaahi mais ba am bi ne ku nekk xam nga kan mooy sa bàyyi waaw. Pape Mbengue ñëwal. waaye bu ñu si yor dañuy bu arbitre soufflé di tal leneen lu dul taxaw di ko riposté yow nga ne du xeex ak yow loolu moo ñu xaw a jaaxal. waaw damay président Fatou wax ni teel a tur parce que nee na bu arbitre soufflé di nga tal leneen lu dul taxaw di xeex ak moom. loolu ñu ma doon ñu ma mës a bëreel loolu la ñu wax mais bis bi yàlla defee bañ na runkum bañ daje dinañu xam ne man góor yàlla biir la man taalibe Seera Fall la. daal may ko jabar. kon. tool yi mooy gis nga yàlla def na. parce que mbooloo bi ñu gis tey par rapport ak mbooloo bi daan def Dakar loolu nan ko booy jaxaat réglé. incha allahu rabi combat bi bëgg naa si 15 car wala 20. mu gàtt gàtt gàtt te di leen wax ni tamit liggéey yi des na de liggéey yi dañoo indi lii rek liggéey yi des na des na yeneen i borom ndax lu ñu jox dafa bari waaw kooku jënd nañu six six euh, bolo yi dañuy ñaan yàlla ñu jëndaat yeneen six bolo yi rek incha allah waaw liggéey yi des na pour gars yi bañ a ñëw xam nga sorof sorof dugg di lancer waat benn appel bi nga xam ne pour waa Jaxaw tike yi newul si man dama dégager sama responsabilité si wàllum tike su mel ni président écrit bi moom moo géré léegi wàllum tike bëgguma ñuy ñëw tout le temps di ma bër tike bër tike léegi wàllum tike gérétu ma ko te moment boobu da ngay nekk sa préparation damay nekk sa préparation te xam naa làmb ji lu mu ñu lu mu ñu mën a yóbbu incha allah waaw lan ngay wax promoteur bi Assane Ndiaye parce que mais bokk na ci mbir yi nga xam ne a kontaan ci bis boobu loolu ci waaw loolu suñu borom moom moo ko def boo xoolee loolu suñu borom moo ko jagleel waa Thiès kon donc asan ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nga wax nag am nañu lu ñu diggee mag moom incha allah damay daan bàyyi ma njoon siñor mu ñëw fekk si ma Thiès ma gën a la koy taxaw waaw loolu moom damay lancer benn appel rek muy suñuy kilifa waa CNG appel ma siy lancer mooy ñun mbëru raison bi war nañu ni ñu sóoraale si heure bi. waaw parce que ñun ak mbëru Dakar mënuñoo bokk a yem ñoom Dakar la ñuy jugee ñun Thiès la ñuy jugee wala feneen ak feneen. kon donc ñu ngi ñaan yàlla incha allah bu ñu jullee deux heures ba pare départ jubali Dakar parce que bëgguñu fee julli te julli. bëgguñu fee jugee te julli wuñu deux heures incha allah. côté Fass club bi ban heure la kaar yi di départ ak fan lay départ encore. kaar yëpp jaxaaw lay départ sama ful de gaale 18 ravitaillement fépp sant sant arrêt jakartaay ravitaillement ñëpp maa ngi leen di nuyu di wax ne tamit damay lancer benn appel borom jakartaay maa ngi leen di ñaan dara ngir yàlla ak yonent bi ñu daw nank dal nank xam nga ñibbi si waat jàmm ak salaam suñu borom suturaal ñu may ñu ndam waaw loolu la ñuy ñaan am na beneen point bu am solo parce que dañuy gis xale yi souvent ku ci mel ni ñoom Baba Diakhal ak ay ñoom si bu Ngor dañuy gis bu ñu yóbboo même bu dee cinq car la ñuy yóbbu dinañ teel a dem occupé benn côté ba seen foot bu yëngoo ñu xam ne lii ñoo ko duy mais souvent mbëru région ñu demee mobilisation boobu bu ci am dañuy tas ba duñu gis li nga xam ni moom la leader bi mobilisé responsabilité pour teel a dem occupé benn loo lépp nekk zone noire ñu xam ne lii c'est pour booy defar. waaw incha allah rabi mbéy côté boobu moom yàlla suturaal nañ si bu baax parce que ñun dañoo booloo nekk benn boo xoolee sama premier combat Dakar ñun ñëpp a nekk ensemble. kon donc combat bi bëgg nañ tamit supporters yi ñu farlu teel a dem teel a occupé première tribune bi waaw moom la ñu bëgg te bala ñuy nekk incha allah zone noire yi rek mooy loolu. Kara mel ni lay seen tamit grand lay ñëw na sigil ma samay mbokk maa sant bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm say maa sant bu baax ñoom may bu baax a baax ni Pape ak soxnaam Pape Cheikh borom marché central maa ngi koy sant bu baax a baax Seexu Moussa sant gis naa li ma defal bàyyi ji bi fax maa sant bu baax a sant bu baax Bafa Gordichon maa ngi koy sant gis naa li nga ma defal gis naa lépp wallahi azim maa ngi lay sant bu baax di woo nag su mel ni Pape Doumbouya ñoo ngi koy woo si combat bi grand lay saw maa ngi lay sant bu baax a baax waaw gis na li ngay daj si combat bi maa ngi sant mairie zone nord zone ouest Birame maa ngi koy woo si ministre Yankhoba Diattara doomu Thiès la ñuy doomu Thiès kon donc combat bi bolok yi des na ñoo ngi ñëw sa kër nga jënd desitu yëpp waaw yeneen six bolok yi des ñoo ngi ñaan pour nga jënd ko boo ko defee Thiès bi yëpp ma beeku dem mbeng maa ngi sant Babacar bu baax a baax moo ma yàq fii grand Aziz Aziz Aziz Peintre maa ngi sant baax suñ fi gis yëpp gars yi dañuy ñëw defar rek dañu ko dañu parce que ñoom moom mooy seen métier moom la ñu mën a jàppale mënu ñoo yëkkati xaalis jox Aziz Mbacke borom wëtir Mbacke maa ngi lay sant bu baax wallahi Aziz yàlla na yàlla defal jàmm di sant Gora Ndiaye Bala Ndiaye maa ngi sant ñëpp daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tamit arrêt jakartaa yi lii seen la man doot ma leen sant lii yéen yéen